في البار مغتربا ولم يصل جل قهرا وجبارا قجاتني جاتني ربي بالحلاء ليا صليب تسليم بالقرآن وارفع وسل نيابا در رفي كارا ربي بما يسرح أصحان قل فجاح بجاه أفضل من لله خل جاحا حمد لرب كريم من لا شريك له وسادري اليوم رنسات حن ملاحا محمد صلوات الله فيه أباد علي في حسبي كل بك أدعو إلى إلى سي محمد المواهب لجملة الخلق ما يختار من براها mbokki jullit mbokk taalibe yi ñoo ngi fii ci kër sëñ Fallou Mbacké Kaltoum alhaaji Mouhamadul Amin ñoo fi doon ko siyaare ci bisub Cheikh Mouhamadul Amin bi nga xam ne jullit yëpp ñoo bokk rawatina taalibe Cheikhul Khadim rawatina kër Cheikh Mouhamadou Fallou ñu ñëw fi doon màggal bis bi nga xam ne mooy bisu alhaaji Mouhamadul Amin nga xam ne ni ko ñëpp xamee léppam dafa seey ci biir Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne bëgg nga moo waral ñëw gi ak dund gi ak dem gi lépp delloo ci Cheikh Mor Falloon njaboot gi nag am ci taxawaay ci njiitu Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu de waxtu bu dellu see ñu day fi jàng alxuraan jàng xasida saafante ak bokk yi dolli ko ay ñaan muy lu am am solo loo xam ne eh, yàlla na yàlla nangu lépp rek tey ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ko taxawee yàlla may leen wér ak gudd fan ak xéwal yi ñu mën a àggale yéen i alxaaj foofu la Baara eh, sëriñ Baara nag moom daanaka lu ci waaye xam ñëpp xam nañ ko ci euh, yàlla boole ko ci Cheikhul Khadim bokk yi li mu rëy rëy gisu ko woon li mu tànn mooy nekk taalibab Cheikh Mamadou Fall te ñëpp xam nañ ne Cheikh Fall nangul na ko ndax ñëpp Cheikh Fall gi bokkal ñëpp rek maa si xam ne ku bëgg Sëriñ Fall lu fi ngi nii te looloo ci la nekk ci la dund ci la ko suñu borom jële teg ko ci peggu Cheikh Mamadou Fall mu dox digganteem ak Cheikhul Khadim euh, kon ñu koy ñaanal yàlla. dolli ay leeram fa mu nekk yokk ay xéwalam te sàmm ak njabootam te defal leen ay xéwal yaatu yoo xam ne li ñu yéene ci moom yéene ko ci taxawal mbiram ak àggale fu mu ko gën àggale yàlla def ko fii ngeen fekk na muy Cheikhoun Fallou di Serigne Fallou Galtoom moom dafa doon koo xam ne mooy ci man na sëñ Baara jàppoon sama waajur jàpp woon ma ko moom mbii wax di yàlla mën naa ne njaboot gépp la ñaay moom mi wax dëgg yàlla daf ca gën a ràññiku ndax euh, bari la lu muy lu ñuy wax bari lu baax lu muy jëf loo xam ne yaakaar na su ko jaarlu ci man rek jàpp nañu du àgg te loolu yéene njëriñ ak yéene tuyaab féete ko kaw ak jëlee na laa yi muy jëf waaye yi muy jëf suñuy jëmm ñun ak yi muy jëf si jëmm ci dañ xam ko te seede ko loolu moom mënu sotee tudd lépp na xam ne moom koy def yàlla rek moo taxoon waaye nag yàlla na ko def ngir moom bu lay fay dañ ne yàlla boo koy lebal du ne la doy na waaye bu la fay amatul fa ma ko def du tax mu bàyyi kon ngi ñaanal yàlla sàmm ko te wéral ko te àggale yéeneem ndax yéeneem xatul ñawut kon bu àggale lu bari dana àgg ñuy bokk ci fekk yëpp cheikh moo ami cheikh Mouhamadou Amine Baara mii nii bu sëriñ jaxate mu suñu am sot jaxate waajuram tuddee ko cheikh nii

ñépp ku am yéene jàppale ko ci bisub tax seetaanul kenn ci bisub kenn kon yaa ngi yàggoo taxawee ci barke Cheikh Fallou te yàlla nangu lépp jërë ngeen jëf salaam. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen siyaare ci nuyoo bi ak siyaare bi ñu si jiital sëñ Cheikh Mahamadou Mountakha Mbacké ñu Cheikh ngi siyaare ñëpp di leen nuyu di leen xamal ne. ñëw nañ ci bisu sëñ Baara mu sëriñ Fàllilu bisam nag yaakaar naa ku ci ñëw da nga dolli ko ci saaxir dolli ko ci baat yi ndax liggéeyam mate na ko yéene mate na ko ab xolam mate na ko ca nim ko matee noonu la ko doon jëfee sëñ Baara nag sëriñ lii loo ko boole woon ak Fama Mbaay alaaji sëriñ Jaxate yëkkati seen ñaari loxo yi tegale ne ànd leen su ngeen àndee dana baax dana baax joojee maa ngi koy yëg ba tey jii fii ma toog mu ànd ak sama waajuroo ba gé ba jóge fi sama waajur mooy jóge fi mu jóge fi sëriñ Fallou Kalto mu sëñ Baara di dundal loola ci man wet gu ne nag maa ngi ko ci dundalee yëg na ma safoo na ma faale na ma fu ma gis màggal ma teral ma ca man as ndongo su tuuti laa kon bis bi ku fi ñëw na ñaan li nga gën a bëgg tey ak ëllëg lu ci waay fas danga ko am kon ñu ngi ñaan suñ boroom yokk ay leeram fam nekk ak darajaam ak i maqaamaam fam ne ak ñam fa ndekkandool ñëpp maanaam ñaan daa munta ñàkk waaye doomi sëriñ fàllu jërul ñaanal sax ndax sëriñ fàllu liggéey na ci yàlla loo xam ne ku ko xam ku xam tur wi rek mën naa defar sa léppi tey ëllëg ñaan nag moo munta ñàkk kon kuy ñëw ku ne da nga ñaan la nga gën a bëgg musul la nga gën a ragal bis bi àttan man na ko yëkkati suñuy di ko tàmbalee rek ci sant sunu borom subhanahu wa taala di jaajëfal xaadimu rasul ci tawféexal gi mu tawféexale ñu bokk ci ñoñam di ñaanal itam cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy alxalifatul am li tarixatil muridiya sunu borom gën ko fa yàggal te wéral ko te mottali ay naalam yëpp tem naal yeneen te ñu ànd ko ak moom te lépp mu fekke sottile ndax njariñ rek la ci noonu di am mbégte itam ci teewaat fii. ci buntu këri sëriñ fàllu yi di kër sëriñ fàllu Mbàkke moom Cheikh Mahmadul Amin eh, di bis boo xam ne itam ni ko mbokk yi waxee rek bisub ñaan la waaye bisu fàttaliku la eh, te dañoo wax ne waa inda zikri saalihiina tanzilu rahma waxtu woo xam ne ñu ngi fàttaliku waaju baax eh, jataay ya yërmaande suñu borom daf ko fay wàcce loolu moo tax nag nu teew fii mbokk yi wax nañ ko Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne mooy borom bis bi nag moom kenn ku nekk da koo xam ci bëgg sëñ Fàllu bëgg goo xam ne da ko wone jëf ko ba ñëpp gis ñëpp xam fi ko sëriñ fallu toll loolu tamit suñ borom faye ko itam euh, bisam bi ñu koy defal mu taqaloo ak bisub sëriñ Fàllu te loolu itam du hasard ndax hasard moom amut suñ borom moom négul ba ñëw àdduna mu door a xool lu nekk kañ lay doon ak nu mu koy defee lu ci doon daf ko bindoon lu jiitu nuy ñëw fii ci àdduna euh, Cheikh Mamadou Amine nag di kilifa goo xam ne moo njëkk a wuutu Serigne ci ay sëtam euh, loolu nag doon lu rëy ngir wane aw yoon ndax doomi Sëñ doomi Sëñ lañ waaye sëti Sëñ Touba nag nga njëkk doon sët boo xam ne yaa wuutu Serigne doon ab xalifaam loolu Cheikh Mamadou Amine la tàmbalee. waaye bi mu tàmbalee itam won na sët yi wutuwaat Sëñ yëpp ni ñu war a taxawee euh, ci taxawaay yoo xam ne mooy taxawaayub diisoo. taxawaayu ànd ndax daa waxoon ne eh, yëf yi kat eh, moom dem nañ léegi ñu ko bokk ñoo fi des ñu bokk dara nag dañ koy waxtaanee noonu la doxal eh, diir bi mu fi nekk yàggut ndax ñaari atag lu topp la waaye def na fi loo xam ne ke ku xool ku ne danga ko gis ci mën a mën a xajoo ñëpp ndax sëñ Saliou daa waxoon ne mbooloo mi su fekkee ne dama leen dama leen a jiitu danaa taxaw nekk leen su ngeen ñëwut danaa wàññi ko gàttandu leen. Cheikh Mamadou Amine nag loolu fekk ko ci moom daa jiital ñëpp maanaam daa jiital ñëpp topp ci seen gannaaw nga xam ne dara du saaw te ab sàmm bu nekk nag lañ ko digal wala la nga xam ne mooy tax mu am fay dañ naa ko ñaari raay yi bu fekkee ne ñëw nga te ñaari raay yi benn amu ci da nga am fay mooy bu ñu réerut ruuruñu Cheikh Mamadou Amine nag fexe na ba njaboot gi ñu ko Serigne Touba bàyyeeloon te teg ko ci loxoom euh, réeruñu ñu ndax daf leen a jiital te sàmm tamit la mu baaxoo mooy jiitalu jiital jur ga ba bu ci bu ci ne foo foo war a jëm bu mu war a fël bu ne mu fël la ngi ngir nga dellu si ci caawa gi kon ñu ngi koy ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala ñaan goo xam ne ni ko sëñ Mouhamadul Amin Baari Jaxate waxee ñaan la goo xam ne rek ngir barkeelu rek ci aada juñ fi fekk ngir ñaanal ko te it loolu te euh, sunna la waaye xam nañ ne liggéeyal na sëñ Tuubaa loo xam ne liggéeyal Cheikh Mamadul Fadil loo xam ne wax dëgg yàlla doy na sëkk ci moom doy na itam ci mboolem jullit ñëpp euh, sëriñ Fàllu mi ñu fekk si itam aw melokaanam moo tax ñëpp ñëw fii ndax euh, euh, sëñ Bara Diakhaté wax na ko euh, njariñ loo xam ne am na ko te njariñul suñu borom dafa wax ci hadiisu xursi ne nit ñi ñoo njabootu suñu borom ki gënal yàlla ci nit ñi nag mooy ku ëppal njariñ ci njabootam kon Cheikh Mamadou Fadal mu ñu fekk si moom Cheikh Mamadou Amine moom sëriñ Fallou jikkoom moo tax ñëpp ñëw fii ku ngeen fi gis ku ngeen fi gisut ñëpp danañ fi ñëw ndax loolu ab taxawaayam la ndax ñoom xam nañ ne seeni waajur liggéeyal nañ leen liggéeyal nañ leen loo xam ne bu leen neexoon ñu toog rek di consommer waaye nag dañoo xam ne dañoo war a produire ñoom itam ba tax ñu xam ne ñoom it dañoo war a liggéeyal seenu njaboot ca loola nag lañ ne xeebuñu kenn kenn ku ñëw fii danañ la jàppee noo xam ne da ngay jàpp sax yow ne ci sa euh, ñàkk solo goo xam ci sa bopp da jàpp ne yow yaa sa bopp waaye am na lu borom def ci yow te loolu seenu melokaan rek la ñu di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala am suñu borom gën ko fee yàggal moom itam wéral ko ni mu toppee ci gannaaw ay magam ndax itam euh, li li li li li mu Mamadou Amine digle woon rek ci loolu la ne mooy topp ci gannaaw ay magam di déglu seen digal kenn dégg ko ci dara loo xam ne du ndigal la cee am door koo def lool nag euh, tawféex la ndax yoon wi loolu rek moo ko moom bu agsee fii loolu rek moo ko fi agsil kon sant nañ bu baax a baax ñu ngi gërëm bu baax di ko ñaanal suñu borom daal suñu borom gën ko fi yàggal te mottali ay yéeneem ndax yéene yu kawe am euh, ci ci ci ci ci dëkk bi ci yoon wi ci diine ji ak ci taalib yi ak ci ñëpp wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi leen nuyu fu way mëna nek nuyo bo xamne mi ngi bayiko ci fi ci kër Serigne Galas mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di am bekté bu baax di jité ci nuyo bi Cheikh Mouhamadou Lamine Mountakha di ko ñaanal sun borom subhanahu wa taala mu yagal ko fi lool te yene yim am ci liggéeyal Cheikhul Khadim suñ galas neena mu agalé ko nam ko bëgge tanu andu ko ak mom te saa bu gestoo gis nu ci ginnaawam ginnaaw loolu ku ne xam ne ne bis bii nga xam ne moo nu fi dajale te fu ab jullit nekk war koo màggal muy bisub Cheikh Mouhamadou Lamine baara ak it bisub Cheikh Mouhamadou Fadal mi nga xam ne mooy kasu rajab yàlla dogal ñaari bis yooyu ci mbaaxu sunu borom subhaanahu wa mu lëkkale leen ngir xir goo xam ne ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Lamine xiroon na ko ci Cheikh Mouhamadou Fadal muy bis bo xamne ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam won juge juge mukaram day dem juge mukaram dem ci sun borom subhanahu wa taala kon bis la bu reey reey bis la bo xamne bisub julit ñepp la waye bisub murid yepp la kon sering bi neena mi ngi ci ndokkeel julit ñepp di ci murid waye rawati rawatina ñi nga xamne ñom la bokal Cheikh mohammed Lamine Bara te Cheikh mohammed mustafa nek ca bobba ak mbollem ay rakkab yepp mi ngi koy ànd ak ñoom te di leen ci ndokkeel ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Lamine nag yaakaar naa murid yëpp war nañoo mën a wax ci moom ndax koo xam ne bi yàlla dogalee ñu di ko gis ci saaxir mu nekkoon fi doon xalifab Cheikhul Khadim diggante bu gàtt la waaye def na fi loo xam ne ba ilaa yemi diini jaar gi fi jaar kenn du ko fàtte ndax jàngalaat nañu tegaat ñu ci yoon mooy sët bi nga xam ne moo njëkk wuutu sayxul xadim ci kaw suuf waaye mel na ne loolu ak tànn la ndax bi mu ko wuutoo ni mu ubbee yëf yi yaatalaat ko xam ne ñi ko ñi ko moomoon dem nañ ñi ñi fi nekk ñoo ko bokk dañ koo war a waxtaane yaatalaat dëkk bi ubbi ko bu baax a baax ba képp kuy ab murit yëg ne yow kat taalibu sëriñ Tuubaa ndax ku ne xam na ne la mu daa wax mooy dong yi rek a fi nekk suñ baara bokk na ci ay waxam donga yi rek ñoo fi ne ndax li fi am ñooma kon kooku desalut gannaaw mukk donga yi nga xam ne ñoom ñoo dongal si donga Serigne Touba yi Cheikh Mamadou Lamine nag jikkoom mooy jikkoy alxuraanu karim rek ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam Aysa biñ ko laajee ne lan mooy jikkoy yonent bi mooy jik alxuraanul karim ndax yaatu ga lewet ga du nangu ku toroxal kenn wala ku jànni kenn walla ku suufeel kenn ñëpp def leneen boppam maanaam ka gën a suufee ni ma ko mën a waxee ak ka gën a kawe mënoo leen a xàjjale ci kanamu Cheikh moom Lamine Bara yitte it nu mu mën a toll bu ko yëgee bu duggee ci ab noppam nam ko daa waxee rek ku am yitte nag ma ko wax bu fekkee loo xam ne jug dox ci tànk moo ca war ñu def ko boo bu dee loo xam ne téléphone koy lijjanti fa mu toog la koy lijjanti ak ku mën a doon amu ci xàjj ak seen te koo xam ne jamono boobu muy def loolu mën nañ ne yoonu murit wépp ci loxoom la nekk waaye kam xamoon daaw ak kam xamoon ay at ci ginnaaw boo ñëwee ci kanam ñoom lay yemale rek kon kooku jikkooy alxuraanu karim yi nga xam ne moom la alxuraan doon taggee yonent bi sallallahu alayhi mooy euh, woyof ku xam ne ne moom da ko jàngale na ko te dund na ko kon nag yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala ci barkeeb soppeem bii nga xam ne bëggoon na ko lool ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Lamine fi mu àggoon ci Sëñ Fallu njaboo ñi mu bokkaloon sëñ Fallou sax dañ ko ci daa wax ne yow de fi nga ci àgg moom yéeme na lum jur tuddee ko lum jur tuddee ko lum amit jàpp na ne sëñ Fallou rek moo ko yàlloo loo loo loo loo tudd ci moom tudd ko ci sëñ Fallou rek gañe nga ko kon ñu ngi koy fàttaliku di jiital ci fàttaliku gi nag sunu borom subhaanahu wa taala dolli ko ay leer ak i njéggal lu waay man sëñ bi nee na mi ngi soññee ci lu waaye man ci alxuraanul karim ak xasiiday cheikhul xadim bi ak salaatu ala nabi ak lixlaas nga defal ko addiyee sëriñ tubaa ba noppi nag yéene ko ci cheikh Mamadou Lamine Bara ak mboolem njaboot gi jullit ñi fi jiitu ñëpp ginnaaw loolu nag fii nga xam ne fi la ñu daje di kër sëriñ Fallou Kalto moo cheikh Mamadou Lamine Bara moom it ku ne xam na ne ab taxawaayam li wolof di wax naan mujjewut yëf ya mu réer ñun ñi toog fii ku ne mën na koo seede ndax jàpp naa ne kenn ku ne la la fi andi bokkut ak la fi andi sa morom te kenn ku ne am waxtu wu nekk am na fu muy jaar ak yow foo xam ne jaaru fa ak sa morom te yitteem ak yëgam ak poosam leen lu ci leen lu mu ciy ñeeblu du am kon jikkoom bari na ñu fi andi moom nag yaakaar naa ku ne mën naa wax ci moom ndax lii nga xam ne moom moom lañ xamoon Cheikh Mamadou Fadil ubbil ñëpp kanam seen kanam ba yitte ju waaye mën a am foo jaxlé ak fo mëna nek ak ci tarixa bo mëna bok bu sa xel bu jaxlé ci señ Fallu rek lay daj lolu mom mi tok ku ne xamna na ne lu mu doon ci mom ndax bari na fu way juggé am yitt xelam ci señ Galas rek lay daj ta bu ñëwé lam ca man ak lam ca mënul da na ko def kon jikkoom mo fi andi doomi adamay kon ñing ko ñaanal sun borom subhanahu wa taala momit mu gën fee yàgg lool te gën a wér lool te gën a am ay xéewal yu baree bari yoo xam ne lim yéene ci taxawu doomi aadama yi ngir defal ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu man ko nam ko bëggee barkeb Seexul Xadim waaye li nga wax day doy sëkk te ñëpp nga ko aleel sëñ euh, sëñ Mamadou Lamine Bara tabaarakallaa yàlla na ko yàlla fayal euh, liggéeyal ba mu doon liggéeyal yàlla ci tool Sëriñ Tuubaa bi yàlla ko yàlla gërëm li nga wax ci moom ñun ñëpp seere nañ ko te noonu yëf yi sunu yëfa waaw noonu yëf yi sunu yëfa sunu maam ak sëñ bi àndoon démb sunu baay sëñ Fallou àndoon ñu ci keppar sëñ Tuubaa lañ juddoo fa lañ yarul amuñu lu muy doo eh, xam ne taxawaay bi nga xam moom la sëñ Fallou taxaw boppam ko defal waaye noonu la ko defal ndax mun bu amul ku mel ne moom dañuy perte ndax na bàyyi woon suñu bokk wala suñu maam bàyyi seen bokk di fekk sëriñ bi lañ fekk soon sëriñ bi lañ yaakaaroon sëriñ bi sëñ bi mel nu am yaakaar ci moom la ñu àndoon sëñ bi jur suñu wayjur sëñ bi yar leen euh, sëñ bi am ak njabootam euh, ñu dund ak suñuy wayjur yàlla nu nañu jox na njaboot ko sëriñ njaboot sëñ bi yar nu te la ñu wuti ci ñoom daal lu may ak ak meloo baax rek lañ doon dabu ci sëñ bi dong dong dong mooy li ñu dabu ba ba tey jii moom na taxawaayam bii ak lii nga wax ci moom tamit lu wér sant nañ ci yàlla ndax sunu mënuñu ko ñàkk waaw ku ñuy xoolee sëñ mënuñu ko ñàkk kii nang nangam sëriñ bi la mënoo ko boo gisee sukkuram boo amee sal jox ko waaye fooy naa ne nag mënoo ko ñàkk te ab naanu kaay la waaw sëriñ yàlla nga gudd fan yàlla nga wér. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Fallou Mbacke moom sëñ yàlla bu baar ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaare ci bis bu màgg bii nga xam ne tey ji yoon murit wépp ñoo koy màggal ndax kiñ koy defal Euh, dama naan sëtub sëriñ tubaa waaye taalibib sëriñ Touba tey jii sëtub sëriñ tubaa bu ne boo mënee boo amee taalibi ci Alaaji Baar nga ko jànge ndax moom day ni mu daan taxawoo doomi Serigne Touba kenn mës ta gis daan taxawoo doomi Serigne Touba yi ba tax Serigne Touba fayee ko tey mu doon sëriñ tubaa ci kaw suuf mu jëf yi jëf yoo xam ne nii ba àdduna tukki kenn dootu ko fàtte man li ma gën a marqué ci jëfi sëñ sëñ Alaaji Baar rek. mooy soo musaana jógee Mbàkke jëm si ci jumaay Tuubaa ji ci nawet daaw mën a fexe ba dugg si jumaa ji waaye tey gis nga ne li fi njëkk indi assainissement ci Touba ci moom la bàyyeekoo kon nag moom jëf la joo xam ne nii ci yoonu murit ci ay jëfam ak ak yaatalam ak fexe ba ñi nga xam ne ñëpp ci yoonu murit lañ bokk yëg seen bopp ci yoonu murit ci moom it la la ko yàlla tàmbalee yàlla tamit nag faye faye la ko yow tamit ngay ku baax suñ fàllu ku jël jikkoom nit koo xam ne ku woyof nga ndax damay wax ne li jaar ci sa loxo ci ay doomu doomu xéewal ak doomu koppar su fekkonte ne jariñoo nga ko ku ñëw sa kër doo toog waaye lépp lu suñu borom mu sa jox delloo nga ko ji nga bokkal ak taalibi sëriñ Tuubaa yi te ci loolu rek ci nga nekk moo tax itam kër gi nii mu mel du jaaxal kenn di la ci ziyaare bu baax dina ci ñaanal yàlla tamit yéene ji nga am ci liggéeyal sa waajur alaaji baal suñu defal la ko di ziare bu baax tamit sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa bi moom it mu jaar fi nga xam ne fa la waajur ma jaaroon ci ak woyof ci ak mbaax ci ak taalibi mu yaakaar ne ma xam ne alaaji baara moom li ko suñu borom fay ci yoonu murid bi doy na sëkk ci doon sëtub Serigne Touba waaye doy na sëkk ci doon taalibi Serigne Touba ndax yoon yi moom day yoon woo xam ne doon ci ab taalibi daa gën doon ci leneen te gis nañ ne kii nga xam ne mooy sëtub Serigne Touba bi gënoon a feeñ ci ak taalibi ci yoonu murid moom alaaji baara la ndax ni mu daan def sëñ Abdul Xaadir di ko jëlee ca këram di ko indi ci jumaa ji di ko delloowaat defe naa yoonu yàgg na loolu waaye kenn mus koo gis ci moom lañ ko njëkk a gisee moo tax bi ko sëñ Touba fayee tamit mu doon sëriñ Touba bettul kenn ak jëfum yu rafet yi nga xam te jëfee na ko fi bettul kenn xanaa ji ñaan suñu borom rek ci bisam bu tedd bii ndax bëgg sëñ Fallou gi mu bëggoon sëñ Fallou ba nga xam ne daanaka doom ji maam sëñ fallu ko tudde maanaam fu lu sëñ Fallou wane sëriñ tubaa rek wane na ko ndax sëñ Fallou dana wax naan bu loo ko mën a wax rek mu ne la kii laa la gën la rek ko borom baraag bi daal maa ko gën la ñëpp wane gi sëñ Fallou daan wane sëñ Touba nag ca yoon woowee la jaaroon moom di wane sëñ Fallou rek ba sëñ Fallou ne ko kaay doon sëñ Touba moo tax euh, lii mu am nii day jëm kanam rek waaye dootu dellu gannaaw waaw te dana yàlla di ñaan yàlla suñu borom tam ñu feeñal ko ci njaboot gi ndax njëfam jooju moom kawe na kawe goo xam ne ci àddina yaakaaruma nit mënatu ko faa fekk kon nag ñoo leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu waa Touba TV bu baax di nuyu jëwriñ mbakk Yuuf ci taxawaayam ci yoonu murit dama koy wax ne bu fekkonte ne yoonu murit lu ñuy teg ay baaraam la teg na fa baaraam boo xam ne dootu dañ ndax lii am masaalikul jinaan nii nga xam ne mooy bisu bi gën a màgg ci ndakaaru mooy jumaa ji ëpp ci Afrique de l'Ouest ku ko suñ borom baaxee sëñ Tuubaa jaarale ko say loxo ba nga taxaw ko ba mag si fii defe naa am nga nam loo xam ne dootu fayati ñun ay taalibi lañ xamuñu lu liggéey sëñ Tuubaa lépp lu waaye mën a def baax na waaye ñun li ñuy ne nawe nit di ko ñee rek mooy liggéey sëñ Tuubaa te li ñuy ñaan yàlla tam mooy nekk ci liggéeyal sëñ Tuubaa rek te bañ koo génn mukk ndax mooy suñ njëriñul àddina mooy suñ njëriñu àllaaxira kon nag Mbàkke jërëjëf ñoo ngi sant bu baax di la gërëm jërëjëf Mbàkke